combat bi dox ci diggante Birngel ak Gandiaye Birngel moom moo féete càmmoñ Gaañ Njaay moo la féetee di joor man ngay xool Fatima soo xamul programme bi ma wax nag booy xool gir Birngel moo la féetee càmmoñ Birngel moo la Gaañ Njaay moo la féetee di joor di joor ak càmmoñ xamoo ko donc bul ma fonta waay Fatima Birngel ak Gaañ Njaay arbitre bi sifflé na Birngel moo la féetee càmmoñ Gaañ Njaay moo la féetee di joor ndaysaan ña ngay lawaatoo Gandiaye ndaysaan moo ngemboo ngembu Lagos bi wala rabal moo ngemboo ngembu lu vert am lu bleu am lu weex li wala ginnaaw ndaysaan combat bi rek doyoon na grand combat ndax ñaari xale yi toll na tolloo nañ neexoo combat bi fu muy mujj Birngel Gaal Njaay Gaal Njaay Birngel yàgg na yàgg na Birngel Gaal Njaay door na Birngel door na Birngel door na ndaysaan Birngel dooraat na Birngel ngay door door na ko door na ko mu daan Mbir Ngeel doon na Gaal Ndiaye mu daanu Mbir Ngeel door na mu daanu Mbir Ngeel door na ko mu daanu awaay Mbir Ngeel waay Gaal Ndiaye jël na coup mu daanu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

mais damaa ñëw jël sama place barke Serigne Touba xale bu ndaw laa. xalaatoon man bëri damay ñëw lii sama adversaire rek ragal barke Serigne Touba du ragal du boo bëggee li si kanam raw naa ko signature bu xeexee daanu bu bëree daanu. ni nga bëree moom moo ñu ko wax man ñu jëlee parce que dama koo dama koo ba mu baax ma dóor ko góor mu remis góor kuraat dama koo appel.